aasbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim bokki ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñaar fukkeelu guddi bi ak juróom juróom-benn rakka doon euh, di ñetti sëlmal rakka bu nekk am benn suratul fatiha waaye tam am nag fukki ixlaas ak fukki naasi bokk yi liñ leen di fàttali rek moom mooy soo ku def naa naafile yi ba pare ñaan goo ca teg rek ak salaawaat yoo ca teg julli ci yonent bi wala nga def ay istixfaar baax na ba tey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasabbihu laylan tawila inna haulai yuhibbuna alajilata wa yadharuna waraahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shadadna